gars yi du kenn nag pour wax leen lii waaye yoon bi du pexe bi yoon bi du solution bi ñun ñi njëkk tukki ñun ñi leen njëkk tukki dañoo réeroon moi j'avais dix-sept ans dix-huit ans quand je Sénégal dans les années quatre waaye démb bu doon tey du ma génn senegal ndax on est arrivé à bon bord incha allahu rabbi ñetti weer ak tuuti moo ci des Sénégal buumu njaam bi dagg ba faw ay nit ñu bari nag dañ may interpeller ci lii chaque jour ñu ne ma est-ce que du tiitaange moo tax Macky Sall di def li muy def nii yëpp pour couvrir son arrière ma ne ndeysaan Macky Sall dafa xamul différence su déglu leen ma bu baax Macky Sall ne sait pas la différence d'un développeur et un détruireur maanaam kuy détruire ak kuy développer ñu benn am na boroom xam-xam bu ma mas mu ne ma quand tu penses tout ton temps à à à garder la haine contre quelqu'un quand est-ce que tu auras le temps de prendre ton bonne énergie pour te développer la vie loolu rek laa bëgg a jàngal Macky Sall comme leçon Macky xëy na ñu ngi xeex ak yow pour jël réew mi ci yow la ñun yow doo suñu misère xam naa yow li ngay xalaat yëpp mooy ñun buñ la jàppee comme bu ñu paree bu ñu jëlee réew mi juróomi at ñu koy def di traquer say bien ak say bien wu famille ak say bien wu doom ak sa jabar ak say xarit billahi Ousmane Sonko bu jëloon réew mi da koy jéem a développer d'abord wutal ndaw ñi xëy bu boobaa lépp lu ñuy gestu ji ñu gestu ko ñun talluñu leen maki bàyyi li ngay def ci réew mi bàyyi li yàq réew mi bàyyi li yàq réew mi ba foofu xam ne bu fa yeggee kenn dootu ko mën a defar dimbali ñu ngir yàlla nga teg réew mi ci yoon ñun yow doo suñu misère man bokk naa ci sénégalais yoo xam ne tey billahi wallahi tallahi bu ñu jëloon réew mi damay ne gars yi bu ñu tal ñii les perdants laissons les tranquilles bàyyi leen ñoom ñu dem xaru ji fële ñun ñu liggéey suñu réew oh oh gars yi nanu lu Macky dimbali ñu ngir yàlla nga nga delloo ñu réew mi ci jàmm bul yàq réew mi waa Sénégal bëggatuñu la loolu je pense que man waxuma ko en tant que Tounkara activiste mais je le parle en gain de cause preuve yi yëpp ñu ngi ne fang nga koy xool Macky divorce bu rafet moo gën divorce bu bon lii jaru ko amul dara ci àdduna lu jar fi ñu jëm ak yow amul dara ci àdduna lu ko jar Macky na rafet li ci des bareetul na rafet Macky na rafet réew mi metti na sénégalais sonnoon na rafet Macky dafa jot mu rafet vraiment man digguma la tàngalu meew digguma la caramel mais la réalité en est que on n'a pas le temps de fair la guerre avec vous les bandits et les délinquants les tueurs et les voleurs ñun amuñu seen jot nous on veut développer le pays le Sénégal c'est ce qu'on veut développer ñun développer réew mi moo ñu tax a jóg jël suñu réew moom mu teg ko ci ay loxo yu set gone yi liggéey mag ñi mën a retraité di fayeeku seeni ay retraite nekk ci jàmm Macky dimbale nu ngir yàlla dimbale nu imaginel yow ngay un président sortant du Sénégal ñun ñu war a tabax réew mi yow nga dem mujje ci ay ay ay ay rato walla ay ay ñu lay rey sénégalais di la rey di def ñaawteef guerre civile di am ci réew mi ñu lay daggate un président loolu honoré la man ngaa bàyyi pourtant ci njëkk comme ni nga ko bañee def ci troisième mandat bi nga bàyyi sénégalam am élection yu libre et transparente tu as fait assez de mal même bu ñu la tëjoon cent ans loolu du effacer ñaawteef bi nga bi nga def même bu ñu la reyoon du effacer ñaawteef bi nga def donc man bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne billahi wallahi tallahi lazim dama leen ne nañu ignorer Macky Sall et on n'a qu'à construire notre pays du ñu construire suñu réew ci haine ñun amuñu enn on peut prendre toute notre vie ñu la koy meree ñu loolu intéressé wuñu imaginel yaa ngi jëflanteeg yàlla yaa ngi jëflanteeg xale yi yaa ngi xeex Macky fi muy mujjantal mujjantal gi jëlal sama kàddu yi ngeen dagg ko ngeen denc ko parce que Macky fi muy mujj sénégalais yi dinañ la mere mere boo xam ne mere nañ la fi mu ne waaye j'en suis sûr et certain que ça peut se réparer dellul ginnaaw ba nga amee chance man nag bu ma waxee xamal ne lu may wax yëpp dafa am fu ma ko teg dellul ginnaaw ba nga amee chance boo poussé mbër mbir mii ba mu sës sénégalais yi dinañu teg loxo ci yow te sénégalais yi bu ñu tegee loxo ci yow danañ la rey danañ la def lu ñaaw a ñaaw a ñaaw sénégalais yi mere nañ la mere boo xam ne bu ñu tegee loxo ci yow dinañ la daggate ay morceau yi morceau ma morceau di la def lu leen neex et pourtant loolu yëpp mën nga ko éviter tu peux éviter cela Macky sors par la grande porte sors par la grande porte génnal ci mbirum élection wu Sénégal ba mu set tu n'es pas candidat tu ne peux pas faire gagner quelqu'un Macky tous ces jeunes que tu fais nga leen di génne réew mi quatre-vingt-dix pour cent de ces jeune mooy ñi nga jàpp seen i carte d'identité ak seen carte électeur ñooñu de toute façon mënuñoo voté léegi seen yaay yi mer nañu seen papp yi mer nañu seen maam yi mer nañu xale yi ñoo ma daan woo avant di ma béggee oh Tunkara bëgg naa la léegi xam na lu may woo troisième âge bi moo may woo Macky léegi di waxtaan ne ma yee nga ñu kontaan nañu Macky bàyyil réew mi arrête vraiment arrête avant qu'il ne soit trop xam naa na yaa ngi seetaan yaa ngi déglu say xarit a ngi seetaan ñuy déglu bul topp benn groupe nit boo xam ne vraiment ils sont dans la merde ñu bëgg laa gën a dugal ci guute il ne faut pas être l'otage de quelqu'un génnal maki nga dem moo gën boo ko defee yaa kayti man nga ciy génn Sénégal amul lu ñu dul waxtaane tu es un président ñun ci suñu bopp ça nous honore pas pour ñuy seetaan ñu humilier un président ñun loolu honoré wuñu ñun sénégalais dañu am classe am dignité am grandeur amul lu xewul Sénégal mais pourtant on l'a toujours on a toujours pris la le haut le haut du pavé te loolu lañu ñu bëgg ci yow mooy ak ñaawteef yi nga def ni yëpp ñu won adduna bi ne nous on est exemplaire ñu romb la fi ñu dem développer Sénégal def ko réew yi gën a avancé ci àdduna bi duñ fi toog di def ni yeneen réew africain yi de jàpp ay président di ko watat di ko dóor di ko rendeeg di ko daggateeg di def lii di dem justice di yéeg a ko wàcc cinq ans yi nga war a développer réew mi yëpp nga def ko à chasse à l'homme non non non c'est pas notre cas Macky Macky génnal ci li nga ne balaa muy trop tard nul nul nul n'est parfait te xam nañu ko